ñu ngi nuyu bépp auditeur u mais FM ñi nga xamante ni saa su nekk ñooy ànd ak rajo bi di Rewmi FM Dakar 97 point 5 rawatina seen mission sociale toute la ville en parle tey ji seen mission euh, sociale toute la ville en parle fas yéene waxtaane euh, jafe-jafe yi nga xamante ni askan wi actuellement ñu ngi koy jànkonteel li ko waral moom mooy ñi le di euh, transporteurs yi dañoo daal di banque seeni yoxo depuis trois jours li ko waral nag ñoom bëri ay jafe-jafe yoo xamante ni bëgg nañ ci saafara amul ba tax nag ñu daal di paralyser euh, complètement activité euh, sénégalais yi paralyser li nga xamante ni mooy économie réew mi moo waxal tey jii ñu fas yéene waxtaanee euh, jafe-jafe boobule dalal ci mbargu Badiane mbargu Badiane bokk nekk président bu union sénégalaise des transporteurs routiers Mbargou Badiane ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm voilà jërëjëf euh, jërëjëf euh, Ndeye maa ngi leen di nuyu di nuyu auditeurs rajo mi leen xamal ne peut-être ñu ngi regretté bu baax vraiment wala ñu ngi désolé wu ci li xew mais amuñu ci pexe parce que euh, situation boo xam ne xëy na ñi ci waroon wax yëpp waxuñu ci liñ ci waroon wax ba tax mu am bi mu amee nag métti nañu ñun ñi nga xam ne ñooy yi ni mu méttee usagers yi méttee ko tam waa réew mi. voilà waaye réew dafa toll foo xam ne ñi ci war a wax ñëpp bu dara xewee dañ ci war a wax xam ngeen situation bi war woon ak ci fii. d'accord euh, mais bi ñu bi ñu commencé ah. dinañ ñëw si kanam tuuti ci situation ah. bi. mais nga ah. nekk njiitu euh, Union sénégalaise des transporteurs routiers. yéen lan mm-hmm. mooy seen euh, particularité ci secteur u transport exactement. bon transport transport routier gros porteurs yëpp. Mm-hmm. tout ce qui est. tout ce qui dépasse trois tonnes cinq cent mhm. loolu moo doon suñu particularité mais fi mu ne nii dañuy y a un changement parce que gis ngeen bu yàggul de mercredi dernier euh, euh, fal nañu président fédération nationale des transporteurs du Sénégal mhm. loolu nag dafa tekki ne transporteurs yëpp la ñuy seen président léegi ci Sénégal mhm. waaye li am lépp solo mooy euh, liggéey bi nga xam ne moom la ñuy liggéey ba activité yi liggéey ko ci USTR liggéey ko ci coopérative nationale kon bëgg nañu liggéey liggéey bu war a aussi mooy xam ne mooy yow ban particularité yow yéen euh, seen syndicat ban touche originale la apporté ci wàllum syndicalisme rawatina ci secteur u transport bi ngeen nekk parce que bëri ay syndicat yu fi nekk voilà ñun ñun ay transporteur la ñu duñu duñu parce que il ngeen euh, mën a mën a ràññatle waaw regroupement yi. Mm-hmm. ak syndicat yi ak chauffeurs yi ak transporteurs ñun ay transporteurs ñun ñooy les les les patronats c'est-à-dire. Mm-hmm. ñun ñooy eh, les employeurs. d'accord. voilà ñu ñooy employé yi ñun ñooy ñooy embauché c'est-à-dire seulement même su fekkoon ñun d'accord ci grève bi sax mënuñu ci dara parce que ñun dawaluñu oto yi dañ koy dañuy embauché ku koy dawal hmm. su koy dawal nag su ne moom day grève mënuñu ci dara parce que doo doo a jël jël place am quoi yéen yéen ay yéen ay patron yi maanaam yéen yéen a moom oto yi yéen ay yi voilà ñu ñoo jënd oto yi ñoo ko jox chauffeur yi ndax oto oto renouvellement parc bi nga déggoon président doon ko joxe man maa ko yore woon. waaw euh, cent quarante cinq camions yi ñu njëkk a joxe. man mhm. naa ko séddale transporteurs yi. Mhm. donc ñu ñëpp ay ay patron la ñu léegi ndax ñooy ñu ngi embauché ay chauffeur mais mhm. pour ñun ndax mënuñu dawal oto yi foog ñu jox ko chauffeur boo ne moo koy dawal kon nous sommes obligés presque de soutenir ci loom li ñu bëgg ndax amuñ ci pexe. donc grève bi yéen a koy def mais du euh, du chauffeur si transporteurs yi ñoom ñooy grève ci boppam. déedéet chauffeur yi ñoo grève. d' accord yéen grève leen. ñun mënuñu ci dara ndax bëggoon nañu liggéey mais amuñu ko dawal oto yi donc ñi nga ñi nga xam ne ñoo koy dawal. Mm-hmm. ñoo gis situation boo xam ne mënatuñ c'est incontournable mënatuñ ci dara. Mm-hmm. ñu ñu ñu def seeni concertation ak syndicat yi waxtaan ak groupement yi. ba indi lu mel nii ndax ñun ci tàmbali ba ba newoon nañ leen d'accorduñ ci waaye finalement xam nañ ne ñoom ñoo nekk ci dëgg. d'accord. voilà. léegi léegi yéen seen liggéey naka lay demee yomb na yombul yéen ñi nga xamante ni yéen ay jënd oto yi euh, ndodd affaire yu bari si seen ndodd lay nekk di embaucher ay chauffeur ainsi de suite comment ça se naka lay deme exactement. foofu la foofu bi gën a critiqué ndax ñun dañuy dañuy jënd ay oto. Mm-hmm. wala état bi financé ñu ñu jël ay oto war ko fay. Mm-hmm. mais malheureusement pour ñun suñu jëlee oto ba pare duñu am lu ñu liggéey ndax dañu dañuy autorisé euh, ñëpp ñi nga xam ne ay industriel lañu ñu nga xam ne ñoom lañu daan liggéeyal ñoo ñu daan jox ay ñoo ñu daan jox ay marché ñoom ñëpp dañ leen autorisé ñu jënd ay oto. Mm-hmm. soo seetee ICS par exemple mi ngi ci quatre cent et quelque oto. Dangote usine ciment la ngi ci quatre cent et quelque oto. cimenterie cimenterie de Sahel ñu ngi ci loolu ak ñeneen ak ñooñu enaan Chine bi nga xam ne day dafa tëli rek bu ñëwee dañ koy autorise jënd oto ba ñun tax na oto yi ñu yore dañ ko dañuy taxaw xool rek mënatuñu liggéey amatuñu lu ñuy liggéey ndax benn benn benn directeur lañ yaakaar liggéey fa mooy Mali te xam nga Mali yaa yaa les am yaa les Maliens mhm. ñu nga xam ne ñoom tamit loolu mooy seen seen soxla am jël seen transport yóbbul ko seen bopp certes ñun mën nañ ci bokk waaye nag si ñu amoon ci ci réew fi ñu war a liggéey ñu bàyyi ñu liggéey fii. Euh, euh, ah, loolu moo ñu yéen di ay oto andi ko. mais dañuy jënd ay oto. waaw. ko. fan ngeen koy jënd Sénégal am am chauffeur. am ah, mhm. ah. da ngeen di jënd extérieur. extérieur la ngeen di jënd dama dama ne la eh, euh, renouvellement wu parc propriétaire président de la République moo ko initié. waaw moom moo moo joxe garantie financement bi. Mhm. mais malheureusement dañ ko jël dañ oto yi ba pare amuñu lu ñu liggéey ndax ñu waroon ñi ñu waroon liggéey ñëpp ku ne jox nañ la ku nekk jox nañ la autorisation jënd ay oto di def transport xam nga ne ICS. Ah, maanaam yéen da ngeen jënd ba pare amoo leen ku ngeen jox oto yi pour ñu liggéey. am nañu kuñ ko jox mais amuñu marché bu buñ ko liggéeyee xam nga chauffeur yi mooy liggéey. waaw. chauffeur yi am nañ chauffeur déjà. waaw depuis quatre ans. ñu ngi ñu mais oto yi ñoo amul lu ñu liggéey ndax boo waree boo amee oto da ngaa war a chargé. waaw yóbbu point A jël ci point B ah, jël ci point A yóbbu ci point B. a liggéeyal ñooñu. ñoom ba ñoo jënd ay oto ñoom ñu jënd ay oto. ñoom ñoo États-Unis aussi dañu jënd ay oto. d'accord ñoo jënd ay oto lañ def transport yooyu concurrence contre ñun suñu oto yi nga xam ne moom la ñu amee. xam nga ICS par exemple. waaw. transport public lay def ndax day jël day jëlee marchandise am ci pooru Dakar pooru Dakar public la. Mhm. amoon na droit peut-être jëlee ko ci usine am yóbbu ko ci dépôt am mais quant à pooru Dakar su xasee dugg public la def. Mhm. donc public boobu nag la war la war a def dañ ko defal entreprise yoo xam ne ay industriel lañu am nañ capacité def industriel am doole jooju mais ñun transporteur bi ñu doole jooju oto la ñu am teg ci dara yóbbu ko nit mu fay ñu. mais may loolu ñu mënatuñ ko def ndax ñoo ñoo ko defal seen bopp. kon yéen gis nga ni état bi sax da di xeex au lieu mu jàppale leen wala. waaw waaw xam naa du du du du du dafa ñuy xeex waaye xaw dafa dafa dafa dafa am ñoo xam ne. waaw. dañu leen a dugal ci ci ci ministère. waaw en tant que technicien te ñoom xamuñu rôle rôle transport ak rôle transporteur certes am na ay diplôme mais diplôme yi feneen lañ ko amee. waaw ci beneen liggéey lañ ko amee mais jox leen loolu transport ñu ñu ñu ñu ñu bëgg ko exercer ñu transport xam euh, réalité bi nga xam ne mooy trans mooy mooy loolu transporteur hmm. transporteur du ko du ko am du ko am doole amul industriel hmm. amul cimenterie amul daal dafa jënd oto rek pour boo yow boo amee sa ciment mu yóbbul la ko su ki amee suufam mu yóbbul ko ko su ki amee feeram mu yóbbul ko ko léegi na fi ñi nga xam ne ñoom la war a yóbbul suñu leen autorisé ñu jënd ay oto di ko yóbbu seen bop kon transporteur fu mu fu muy liggéeyee loolu problème la. léegi léegi léegi yow Mbargou naka nga gisee eh, euh, syndicat yu bari yi nga xamante ni mi ngi ci biir transport bi yow ban jàng nga ci am. bon mënul ñàkk léegi ni mënatul ñàkk ndax bàyyi nañ ko ba mu ba mu ba mu pourrir ba pare te gis na gis ne ñoom gis nañu ne syndicat moo gën a yomb. Mm-hmm. Euh, mënoon yomb nekk chauffeur pratiquement ñu nekk ñi wax syndicat yëpp chauffeur la waaw mais nee nañu gis nañu syndicat moo gën a yomb nekk chauffeur. <laughs> ndax da ngay toog da ngay da ngay da ngay considéré aussi comme comme patron wu chauffeur yi wala yooyu. Mhm. donc tax nañ ñu ñu bëri dañu dem nañ ci chauffeur nekk ay syndicat. kon yow xanaa da nga jàpp ni maanaam boo nekkee syndicaliste maanaam xanaa da dafay am payoor wala lu spécial looy am ba tax ñu bëri. dañuy am lu spécial parce que fi mu nekk nii oto bu chargé fii jëm Bamako. waaw ñoom ñu ngi teg table ki waaw oto bu ñëw ñu daggal ko benn ticket mu jox leen cinq mille francs. Mm-hmm. sur trois cent trois cent par jour ku nekk joxe cinq ñaata la. séddale ah léegi ñu ñu ñu séddale ko ci seen biir xam nga ñoo ñu ëpp saa yi ñoo ko ah. ëpp ñoo ko ëpp transporteurs yi. Mm-hmm. donc mënuñu mos loolu ba di ko bàyyi duñ ko duñ ko bàyyi foog foog syndicat yi gën a a bari day comme ni ko gisee mi ngi bari mais day gën a bari ndax dafa am dafa am ñam. dafa am yu nekk si ay ñam. mais dafa am ñoom leen yéen patronat bi yéen. déedéet arrangé ñu parce que xaalis bi leen di jox. jógewul ci poste chauffeur ba jógewul ci salaire am ci xaalis lay jógee ñun transporteur bi. yéen yéen seen bopp. waaw ci ñun lay jógee ndax ñun ñu jox chauffeur de frais de voyage. xaalis bi ñuy jox bi ñuy jox syndicat bi ci frais de voyage chauffeur bi la koy jëlee jox ko ko mais du ko jëlee ci salaire am. mais mais bu loolu amee yow sax wax nga ko léegi chauffeur su bëri dañuy dem bëgg a nekk syndicat euh, bëgg a nekk mhm. syndicaliste plutôt jiite parce que am na ñam kon ça veut mhm. dire que euh, fayoo leen chauffeur si lu baax maanaam euh, chauffeur ah, si lu ah, ci kon luñ luñ leen mën a fay ak ak ak trois cent camion camion bu nekk cinq mille loolu ko mënuñu ko ko sax maanaam mais mais chauffeur yi dañuy dégg ñuy jàmbat que payoor yi ainsi de suite liñ ñun ñun li ñu leen di fay ñoom ñoom ñoom ñoom chauffeur ñoom amuñu ba ci oto bi. maanaam yéen li ngi leen di fay. yéen maanaam li ñu fay bi. waaw li aw mënu ma ko am ci oto bi man. ah bon su ma fayee bor ma bor bu ma état bi lebal ci oto bi un million a neuf mille francs ci par weer. waaw. ay ay trente mille laa ciy dese bu ma fayee bi fay loolu trente mille laa ciy def ci ci ci weer bi trente mille chauffeur bi dana am cent dana am cent cent quarante mille ak frais yi ñu ko doon jox kon kon kon moom ëppale. ah mais kon yéen lu tax bu fekkee seen liggéey bi euh, amee euh, bon euh, amoo leen si bénéfice bu bari mais lan moo tax liñ leen di dégg tamit bariwul chauffeur si rek la ñuy faral di dégg. waaw mais bokkuñu. Hmm. ndax man ndax man man li tuuti chauffeur am naa am na ko am na ko am cinquante am na ko am quatre-vingts am na ko am cent cinquante. donc nombre boobu ak nombre tolluwuñu. mënuñu mënuñu tolluwaay wax man quinze sama sama man li tuuti chauffeur bu ma nee quinze Mm-hmm. am na ku ma ëppale am na cinquante chauffeur am na nombre boobu ay seen i wax ak nombre patron mënul tolloo. mënul tolloo. déedéet mënul tolloo. mais yéen duñ leen duñ leen dégg ngeen def ay yëngu-yëngal. Euh, bien bien déedéet yëngal bi suñu suñu réew ñun mooy euh, waxtaan. waaw. bari na yoo xam ne di dindi nañ ko ci transport ñun ñoo ko dindi ci waxtaan lañ ko dindee mais euh, suñu réew du yëngu-yëngal ndax ko xam ne dañ da ngaa leb oto war ko fay. Mm-hmm. weer bu dee nga war a génne émission xam nga ne gaare mënu la ah gaare arrangé wu la ndax soo gaaree fooy jël la fee kon loolu moo tax ñun duñu duñu dox di yëngal mais toujours ñu ngi dox ci ci ci suuf di wax ne lii baaxul lii baaxul lii baaxul di bind yi di bind ministre bi di négocier ak ba yu bari ñoo ko ñoo ko dindi nañ ko ci yoo xam ne kenn amul trompeur amul amul amul tambour amul trompeur may waxee maanaam tey ji transporteur li ñuy jooy xam naa yéen patron yéen a war a gën a méttile dama ne même ñoom bëri na mais yéen tamit yéen ngi am ay jafe-jafe mais lu tax jafe-jafe yooyu du ngeen di xeex pour dindi ko au que ngeen di waxtaan si suuf ndax ndax ñun ñun ñun suñu rôle du loolu loolu xeexkat wax naa la ñun ay boo seetee transporteurs yi ñu si gën a ñu si gën di xale peut être am nañ cinquante cinq ans hmm. voilà chauffeurs yi ay ay dix huit an ay vingt cinq ans ay ay vingt huit ans trente ans yooyu bokk ñoom ñun euh, position pour xeex ñun ak ñun amuñu amuñu maanaam suñu xëyee suñu kër xool chauffeur bi mu mu mu mu mu mu oto nekk ci en règle këyitam yi mu war a manqué ñu toppatoo ko jox ko wutal ko chargement wala moom wut chargement jox ko mu dem ñun dañuy toog suñu kër li sama bi dañ nekk ci tali bi liñ koy liñ koy liñ koy teg liñ koy laaj liñ koy liñ koy nangu moom moo koy moo koy subir loolu moo tax moom la xolam di gën a tàng ci man mi tam ci kër gi tolloowuñu d'accord léegi euh, préavis de grève normalement euh, comment ça se passe la war a demee ba ñu yegg ci ci préavis de grève war naa def un mois nga def nga joxe préavis bind bind autorité yi nga xam ne moom moo lay ñoo lay ñooy ñoo yore secteur bi nga yore hmm. nga leen am naa tel tel tel tel difficulté yoo xam ne dama bëgg ñu waxtaan ci su fekkee ne kat waxu leen ci dara feek kat sàngam dana lay dañuy dem grève hmm. donc war nga loolu mooy préavis de grève mois avant ah. ma ne war nga ko def au moins un mois avant. grève un mois avant oui. léegi léegi te ñii il paraît que def nañ ko deux mois doo def nañ deux mois lu jiitu sax un mois def nañ deux mois yoo xam ne. Mhm. joxe nañ préavis di wër Sénégal di di di informer euh, gare routière yi di informer gare yi di informer euh, garage mécanique ak ñëpp di informer état bi waxul daal ni teel mhm. mais man maa ngi yaakaar ne euh, warul woon a demee noonu. Mhm. bi ñu joxe préavis pendant. quinze jours am na ñeent ñoo xam ne waroon nañ ci wax balaa ci président di jot. maanaam mooy ñan. Euh, kenn ki mooy directeur général di port lu mu mën a fexe lu mu mën a fexe moom war na ci waxtaan ba pooram di taxaw ñaareelu mooy euh, euh, président assemblée nationale réew mi moo fi teg ci ci baati ci baati réew mi lañ ko fale foofu. Hmm. su gisee lu jëm ci réew mi lu war lu war indi jafe-jafe war na ci wax balaa président bi si jot. ñetteel ba mooy ministre bi nga xam ne mooy mooy yore transport ministre boobu war na def le tout ba nga xam ne balaa balaa date di expiré mu leen waxtaan ak ñoom xëy na bu leen teel na woo du yàgg si ci maire mi ñu maire ba ne ko duñ ko wujji mais soo toogee deux mois bind nit faalewu la ba dernier moment ba nga xam ne gisatul dara mu sol la woo fu la neexee ne demuma. Mhm. ñeenteel ba mooy ku mel ne COSEC. waaw euh, COSEC waroon na ci wax parce que c'est le conseil des chargeurs du Sénégal moom tamit ci ci ci liggéeyu euh, transport su transport ci amul transport maritime du am. ñooñu ñëpp dañ ci waroon a wootee waxtaan ci juróomeel bi mooy maire de Dakar. Mhm. la maire de Dakar ndax ñu ngi ci capitale boo xam ne. waaw. ah war nañu war mi ngi si capital boo xam ne euh, ci Sénégal yëpp euh, vingt cinq pour cent wala trente pour cent ci Sénégal yi ñu ngi ci ñu ngi ci biir réew mi kon suñu yónnee am difficulté boo xam ne da koy da koy jural jafe-jafe nit ñi xëyul liggéeyi moom dana ko yëg maire am dana ko yëg ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi ci biir maire yi dañ dañ ne moom mooy maire maire bu dee mooy yaayu réew mi lu nar a lu nar a lu nar a euh, mooy yaayu dëkk bi lu nar a si dëkk bi war na ci taxaw ñooñu ñeent ñi wax ba juróom fekkoon ne kenn ku nekk jëloon na sa jëloon na sa bâton de pèlerin waxtaan ak chauffeur yi waxtaan ak syndicat yi duñu activité yi. donc yow jàpp nga ni ñoom bi ñu dugalee préavis de grève rek autorité yi nga lim waroon na nañu réagir. voilà justement loolu ñu xaar ba mu ba mu ba mu péri ba date bi àgg ci ci ci ci ñuy ñuy taxaw. Hmm. ñu soog ñu a wax ñu leen di loolu moo warul nekk. mais mais Mm-hmm. Hmm? démb démb dañu dégg man Mansour Faye ministre bi di wax ne euh, moom mm-hmm. euh, normalement transporteur yi bu dee respecté nañ rek euh, mbir mi normalement bi ñu defee quarante huit heures tey waroon nañoo xëy dem liggéey parce que grève deux jours la ñu waxoon loolu mooy waxi lan yow nga nga nga taxaw ne da ngay da ngay da nga am naqari di naqari di naqari transporteur yi ñëpp xam nañ ko mm-hmm. ñëpp teg nañ seen bët moom ci na ko ndax te récemment la tëj lu lañ tëj meeru lañ tëj police Kébémer mhm. ah, li tax ñu tëj ko mooy euh, police yi dañuy monté si kër monté lewu leen mhm. kenn ku nekk gis na ne benn police lay arrêté juróom-ñetti oto juróom-ñetti camion ci sibente ci bi ne ci diggante te te interdit loolu dañ ne da ngay arrêté benn oto mhm. soo contrôlé ba pare nga bàyyi ko mu dem nga arrêté keneen malheureusement ku nekk ku nekk ngi teg sa bët ci loolu ku nekk gis na ne euh, corridor Dakar ba ma ko depuis dix ans dañu ne woon euh, na am trois postes de contrôle superposés yoo xam ne police bi day nekk fii gendarmerie nekk fii douane bi nekk fii ku ñëwee kuy contrôler nga contrôler su paree oto bi dem kenn dootu ko contrôler fii ñetti post yi bu jeexee parce a vingt cinq postes de contrôle ci fii ak ci dëra ah te ñooñu ñëpp a koy gis depuis dix ans te te euh, règlement UEMOA tere woon na ko CEDEAO tere na ko kon li li ñuy tere chauffeur yi ñu di ko def loolu lu ko raw la yi def te te kenn waxu ci dara ak gendarmerie. kon gis nga euh, Mansour il n'a rien compris. non c'est-à-dire déjà moom naka gisee sorti démbam bi parce que jàpp na ni chauffeur yi bi ñu defee deux jours dañoo waroon arrêté grève bi tey ñu xëy liggéey même bu fekkente ni négociation jotul am ak état bi. kon kon kon li ñu doon taxaw kon su dee loolu lu tax ñu taxaw. taxaw rek pour taxaw ah, c' est pas ça ñoom xam nañ li tax ñuy taxaw mais nañu nañu faj góob bi tax ñuy taxaw xam nañ ko nañ ko faj mun na moo nga gën a noppale xam nga yooyu yëpp ay ay justificatif la di wane di wane loo justifié ne fii mënoon nañ def lii fii mënoon nañ def naa mais li li li nga li nga wax waa ji mënoon na ko def yow mënoon nga ko def tax defoo ko mhm. moo gën a yomb pour nga def ko xam nga mi ngi mel ne nga jub ni di ko classé naa ko toppal ah yow toppal yow ñu koy wax yow ñu koy wax toppal su mu ngoog mais su fekkee nga da nga yaakaar ne yow moom moo war a def lii yow nga yow yow am nga am nga ci part responsabilité ah su su fekkoon ne boobu ñu war a def kon yàgg fi tey mm-hmm. ah. léegi yow Mbargou naka nga gisee euh, que waroon na am na man seen seen utilité vraiment. Mm-hmm. pour yow amul njëriñ ndax ndax dañ leen di fàtte saa yi xam nga xam nga maa ngi doon lim ñëpp mais fàtte naa leen sax parce que. waaw parce que ngeen ay autorité mais tuddoo sax. parce que parce que déggoo ci ñoom déggoo ci ñoom loo loo loo loo mën a loo mën a fii loo mën a adressé woo ci ñoom wala loo loo mën a xalaate doo dégg benn yoon seen réaction ci dara ah donc da nga leen di fàtte sax pour man existé wu sax vraiment. Hmm. vraiment parce que jamais nga dégg. situation bu mel nii kon si si si c'est un conseil. Mhm. kon kay depuis depuis depuis depuis le départ war nañ ci wax ñun waroon nañu taxaw woo woo woo mhm. ñu bokk waxtaan ba jubóo. Mhm. kon du ñu ak fii tey. parce que objectif o conseil bi ñu koy teg nekkul woon sax nga xaar ba grève am mais ba dox jéego yi nga war a dox pour grève bañ a am moo taxoon ñu teg au conseil. loolu laa wax dama ne waroon nañu woo woo à l'époque. woo ba autorité yi ñu bokk toog ñoom ñu nekk arbitre waxtaan ak ñoom ba nga xam ne ñu leen naqari ñi daañ ko xam ñi bàyyi ko ñi ñi ñi ñi continuer seen liggéey war ñu woon xaar ba ñu gën mais mosu leen même ba tey dégg nga leen ci ci ci waxtaan bi kenn. Mhm. am na fa leen dégg ne ñu nañu kenn man dégguma ko. kon jàpp nañu d'accord nga si si wax ni euh, liggéeykat yi wala patron yi wala euh, ñi naan dañu war a tas au conseil du du dialogue social. wa wa loolu moom aw ma ci aw ma ci vraiment aw ma ci décision aw ma ci xalaat aussi li ma xam mooy xëy na ñu ko ñu ko ñu ko ñu ko créé ñu ngi gis njëriñam ah mais en tout cas ñun ñi nga xam ne ñun ñooy civil yi gisuñu njëriñam. léegi gisuñu fu mu ñu fu mu ñu féete. Mhm. léegi lan mooy euh, jafe-jafe yi carrément parce que sànq ba léegi yaa ngi wax Euh, li ñu naqari li naqari chauffeur si mais pour amplement pour ñuy déglu xam exactement lan mooy jafe-jafe yi tax tey jii chauffeur yi toog ay fan nanguwuñoo dawal mu nekk grève boo xamante ni euh, dafa dafa réussir totalement parce que fépp ci Sénégal respecté nañ ko euh, gisuñ tata daw gisuñ Njaga Njaay daw gisuñ car daw gisuñ taxi daw insi de suite à part Dakar dem dikk pratiquement benn chauffeur dawul lan moo naqari chauffeur si exactement yan ponk yu na am solo li li li leen li leen naq li ci gën a metti mooy li liggéey te mënuloo ci am dara. waaw liggéey te la ci am dara bi nekkul ne dañu dañu dañ leen dul fay salaire déedéet. Hmm. dañ leen dañ leen fay salaire mais dañuy xëy boo liggéeyee cinquante mille ci tali bi euh, trente trente mille def ci tali bi. ci ñi ci ñi kaw tali bi cinquante mille ci kaw tali hmm. loolu day day day indi waxu bien sûr que oui. voilà amul leneen. Mhm. léegi yow foo taxaw jox leen xaalis soo taxawee foo xam ne kii ñu ñëw sabo la nee euh, la da ngay fay dix-huit mille francs mu ngaa dégg benn benn benn nit yore benn porte-clé ak kii ñëw teg teg sa oto nee la da ngay fay dix-huit mille man da ngay fay quinze mille mhm. te ngay da ngay nga ñëw vingt vingt deux mille ngay fay wala vingt cinq mille francs mhm. ci da ngaa da nga doon dem nga nga doog ba yàgg sa sa oto bi tàng nga taxaw euh, wut di wuti ndox pour sotti ko ci ñu ñëw fekk la nga sabala nga ne lii ñu ne vingt cinq mille ngay fay ak yooyu dafa dafa dafa dafa nekk ba nit ñu dañoo fees ba nekk maanaam ci lu ci lu baax la ko ko ko minute la boo xam ne dañ ko tëj lu yàgg ba ba ba ma agsi ci war a explorer dañ ko ubbee une une part mu mu mu génnee vapeur bi mu génnee nii mais mais dafa doon dafa doon dafa doon explorer tëll ñëpp ñëpp yëg ko léegi chauffeur bi loolu muy fay mbargo Euh, si poche patron yi lay jóge wala si xaalis chauffeur bi lay chauffeur bi salaire la am boo yoree lañ koy fay waaw donc li muy joxe lépp ci patron yi la jëm si yoon encore si seen yéen si seen i xa seen poche lay jóge suñu suñu poche la jóge ci la ci la waroon a jëm si waaw loolu moo tax so euh, boo waroon Sénégal mm-hmm. foo dem da nga fekk lu ma mille camions yoo xam ne dañoo paan te kenn mu defar mm-hmm. da nga ko fekk ay fekk ay ay ay ay tata yu paan mais da bu nekk da ko fekk ci oto yi ci garage yi ñu yàqu ndax mënuñu leen defar lu tax mënuñu leen ko lu ko hmm. liggéey ndaxtiwul bu dee transport hmm. da ngay ñëw gaaru ceer boo maraîcher nga nga bindu fa sa oto. bu dee sept places nga yore wala quinze places da fay taxaw neuf jours pour pour chargement wu quinze personnes. pour mhm. simplement sept personnes bu war a yóbbu Saint-Louis transport illégal baa ngi war nga ne xaw ma ak war li ngi ñuy si buntu buntu gare routière bi di chargé client yi ñu di gis a ngi leen di gis ñu leen war a tere ngi taxaw ci seen wet war nga ne tere ba ba taxaw seen wet ñuy ñuy ñuy chargé client yi di yóbbu di chargé client yi indi yow nga ne ci en tant que euh, transport en commun boo xam ne dafa am légal dafa dafa dafa dafa légal ci kayit yi mu yëpp keneen koo xam ne amul benn droit ci def transport assurance am baaxul ndax assurance bu per particulier yore quinze mille franc la ci fay pour trois mois yow nga fay assurance boo xam ne quatre vingt dix mille franc ngay fay ci trois mois war a liggéey ñu moom ñëw taxaw ci bunt bi jël client yi ngay am ngay taxaw quinze jours boo xam nga taxaw huit jours ci ci bi hmm. charge sept personnes li nga yóbbu lépp frais la boo demee seen bi nag boo saafee dikkaat loolu nga yaakaar ne da nga ci mën a da nga a yóbbu sa kër dépense ak mais li nga yóbbu lépp da nga koy jënd gaz wala ak dépense yi fan fan nga doon lekk. Hmm. boo kooku boo doon manqué def nga koy defaree. ça pose problème. loolu lépp mooy problème bi nga gis ne oto yëpp garage garage yëpp ñu ngi fees ak ay oto te mënuñu ko defar parce que amuñu beneen métier mais amuñu boo mooy problème fondamental bi. bi bi bokk na bokk na ci gën a yi léegi si corruption foog ñu taxaw si tuuti bala ñuy demaat si beneen ponk bi léegi hmm, corruption hmm. boobu si kaw tali bi naka lañ mën a mën xeexee parce que tamit eh, yéen yéen a kay euh, waaw mais man dama man dama demee dama nekk Europe damaa gisoon police am police bu koy mhm. ni police yi di contrôler oto yi am beneen police buy contrôler na policiers yi ak di ko contrôler yi am préfet boo xam ne day ñëw day civil wala mu dugg ci oto yi wala mu xool ba xam kan yaa ngi jël xaalis wala jëloo xaalis loolu dafa war a am dafa war a am ci réew moo xam ne dañu dañu dañu dañu dañu dañu dañu décider jëm ci kanam dañ nekk en voie de développement hmm. ndax nit ki nit ki policier woo transporteur yoo chauffeur yoo kenn du doyal xaalis ku ko nekk fu ko mën a amee fekk fekk terewuñ la ko danga ci topp ko donc ñi nga xam ne waruñu ko am ci kaw tali bi nañu nañu nañu nañu nañu bàyyi tali bi ñi nga xam ne ñooy wut xaalis ci kaw tali bi ñu bàyyi leen di wut ko luñ suñu amee xaalis boobu xam ne ba oto bi màggatee da jënd beneen oto i eh, borom que oto yi màggee na bu yàgg hmm. mais mais pourquoi pas parce ah, lu mu jënd beneen oto ndax ndax li mu lu mu war a lu mu war a jël am na koy jël ci ci place kaw tali bi. yow léegi jàpp nga ne maanaam dafa war a am police buy contrôler police. ci kaw dafa war a am police buy contrôler police am gendarmerie buy contrôler gendarmerie ci kaw tali bi di dugg ci oto yi waxuma nag koo xam ne yow oto rek ñëw taxaw di kuy dugg ci biir oto yi. ñu jox wutal ko carte wala ñu di ko fayal paas muy xool situation bi nga xam ne moo ne ci tali bi ku def lu ñu warul def ñu def loolu ñu la wax loo warul lu ñu warul lu ñu war a def. su ko defee ñëpp daañu daañu aw ci yoon borom oto yi daañu am ci oto yi dara ñi nga xam ne dañuy liggéey bu weer dañ jot seen salaire waaye boo boo doon xool ñi ngay oto yi ngay gis war gaynde yi ci gën a bëri ay autorisé autorisé mu ne moom mhm. ñoo ne ci kaw tali bi jënd ay oto teg ci kaw tali di di laaj xaalis ñoom ñoom c'est des transporteurs non non agréé mais li ñuy am ci xaalis euh, transporteurs yi agréé duñ ko am parce que ñoom duñ jënd duñ jënd pneu duñ jënd batterie te tey ñu ngi ñu ngi mais tamit est-ce que parfois tamit euh, euh, du transporteur yeeg ñoom seen maanaam ñoo du nekk ci yoon ba ba corruption boobu mënuñ ko xeex carrément say këyit du mat ainsi de suite ba tax ñoom ah, naa au lieu que may uti këyit yu mat ainsi de suite wala ma nekk en règle waa naa préparé am lu ma joxe ci kaw tali bi amul amul amul oto booy dat ci kaw tali bi muy def transport transport boo xam ne transport en commun te amul këyit yu Mm-hmm. amul mais li ci nekk mooy tardement bi nga xam ne moom lañ lay moom la ñuy imposé moom ngay moom ngay moytu da ngay dañ lay dañ lay téye si sa oto di wax yoo xam ne doo xam fu mu jëm am na benn benn benn benn benn suñu benn camion ci camion yu bees yi nga xam ne war la génne oto bees tekk la. Mm-hmm. ñu muté ko ci service de mine jox ko nit mu dem barki dem lañ ko téye kaw lax ba six ci suba ba dix huit heures ci ngoon naan ko numéro numéro mutation baaxul. loolu ba ba kañ. fekk bëgg a lekk sa xaalis rek. waaw te sama waa yi waa ñu naan ma jox ma junni mu ne ko man bu dem man nag doo yom junni mu ne ko junni bi su nankee ñaar fukk doo doo dem mu ne ko man mille cinq cent laa def fekk dama ci réer mu ne ko junni bi su nankee ñaar fukk doo dem téye ko fa six heures ba dix huit heures ci ngoon mu soog koy delloo téye sam na ko demal loolu jaadu na ah loo ci man boo waxee ñu ne outrage da nga doon saaga da nga doon fii ñëw ñëw indi lay jafe-jafe yóbbu la boo demee doo wax sax léegi ah. beneen ban ponk encore moo métti ah. chauffeur si ba ñu euh, banque seeni yoxo beneen bi ci des mooy pompe bascule bi mhm. pompe bascule bi dañu ne ah, da ngaa war a chargé temps temps bi nga war a chargé boo ko dépassé euh, cent kilos wala deux cent kilos dañ ko war a wàcce d'accord mais loolu li ko li ko war a accompagner dañu deful ndax fi mu ne su fekkee da ngaa war a dem Bamako wala nga war a dem rek Tamba nga war a chargé trente cinq tonnes trente cinq tonnes boo ko chargé ñu fay la tonne six wala sept mille soo demee ba Tamba doo am gàllankoor buy dellu si Dakar ndax li ñuy tey bi baaxul. woote naa bëri ci dem pour ñu wax pour ñu wax tey bi parce que transport camion dafa am tonne kilométrique bi ñu calculé moo moo koy permettre bu demee mën a si waat ndax si terme yi. dañ leen di fay aller retour ndax xam dañuy yóbbu gasoil wala essence quelque part mais dañuy ñëw vide dañ leen di fay aller retour ñooñu mën nañ ko mais ki nga xam ne dafa yóbbu benn commerçant yóbbu ko ceeb wala diwlin wala café su demee kenn du ko fay retour léegi su fekkee li ñu ko fay su fekkee baaxul bu dee foofu doo am lu ko delloo si waat donc su au lieu de funde chargé trente cinq tonnes yi nga war a chargé boo demee doo ñëw nga ne kon naa ci te quarante cinq tonnes de plus léegi boo demee yooyu ci ngay ci ngay préparé pour dellu man ci dellu si waat xam nga toujours yaa ngi nekk en surtage donc ñun man man suma suma suma rôle mooy ñu éradiquer complètement surtage nga xam ne dootuñu ñu dépassé benn kilo ci poids bi ñu jox mais ñu fayee ko tarif boo xam ne day conséquent par rapport ak li nga doon yóbbu boo demee desal ci dara loo xam ne da la mën a dellu si da ci mën a yóbbu sa kër loolu wax naa ko waxati ko wax naa ko récemment barki dem bi dégg ngeen ma ci. dégg ngeen ma ci à chambre de commerce. wax naa feneen dañu bëgg éradiquer totalement le surcharge. waaye ci condition que ñu am tarif boo xam ne dañuy permettre ñu mën a charger loo xam ne bu ñu demee daañu ko desal lu ñu dundee ak lu ñu fajoo. waaye loolu mooy problème bi kese moo leen loolu rek na mën na onze. mët na onze am na yeneen onze point la waaw dimbal naa peut être cinq wala yooyu mais des na yu des na yu bëree bëree bëree bëree yoo xam ne ndax ndax ndax ci li bokk na ci euh, yow so oto wala sama oto dañu xëyee ne da ngay changé carte grise bi ndax am na am na nouvelle carte grise yooyu bi ñuy changé carte d'identité yi nekkoon Sénégal nombre carte d'identité yi ñaata la mais kenn joxewu ci doom yow nag ñu ne da ngay fay da ngay fay vingt mille wala vingt cinq mille ensuite plaque bi nga war a sa plaque bi ci war a taf boo ko doon xool ci matériel li ñu ko doon jënd euh, warul passé deux mille cinq cent ñu ne dama ciy fay quarante mille ah xam nga loolu tamit jaaduwul. doy na waar. jaaduwul donc donc licence bi nga xam ne yow man dama am sama licence oto oto baa ngi dund déewul demul demul fenn naa ngi koy dawal ñu xëy xëy ne koy changé mais foog nga indi nga mille wala dix mille pour changer ko. pour changer ko. ah waaw lu tax lu tax nañ ko buñ ko bëggee changé nañ ko changé nañ ko fa beneen signal boobu mais foog ma fay. kon maanaam daal nit ñi nañ jàppee ni yéen euh, transporteurs yi noonu ngeen di amee xaalis ci transport demeewul noonu. maanaam diamétralement opposé gis nga li ma lay. waaw gis nga li ma lay li ma la mën a waatal bu fekkoon ne da ngay da ngay sarxe. Mm-hmm. ngay sarxe laa wax romb benn transporteur ñaareel ba nga ko joxul am nga bàkkaar. Mm-hmm. parce que am na ñoo xam ne. au jour na jour la ñuy dund li ñu yëpp tey ci la ñuy ci la ñuy dépense tey su ñu denc dañu ñu defal dara. lii certes am na ñoo xam ne am nañ ci c'est des florants de transport ndax am nañ ay oto yu bëri yàgg nañ ci am nañu ay marché yoo xam ne dañ ciy liggéey te ñu ngi desal dara mais par par rapport ak ñi ngay gis ñu am benn oto ñaari oto chauffeur chauffeur oto yi nga gis yëpp chauffeur yore ko li ci ba moo dem ba ba. te yow nga nekk ci problème :fra fay oto bi ak lu mu dundee ñu ngi leen di fàttali yéen a ngi suivre seen émission sociale toute la ville en parle tey jii Ndeye Comba Moreau euh, dalal Mbargou Badja nekk président bu union sénégalaise des transporteurs euh, routiers ñuy waxtaanee jafe-jafe yi nga xamante ni euh, secteur bi le am na ko wante c'est vrai transport am na place bu bu bu ci wàllum koom-koom parce que pratiquement bi ngeen toogee fan yi liggéeyu leen koom-koomu réew mi am na problème mais yéen tamit yëg ngeen ko parce que rentrée frais d'argent yi ngeen doon am amoo leen ko lan la leen jural euh, grève bi la côté économique métti si ñun trop trop am na chauffeur yoo xam ne am na chauffeur yoo xam ne ak transporteur yoo xam ne dama la waxoon naa sànq ne seen dépense au jour le jour la am na ñoo xam ne fi ne nii dañ leen di dañ leen di dimbali yónnee leen dépense mais sinon duñ ko am am na chauffeur yoo xam ne seen moroom ñoo leen ñoo loo dencoon dara jox leen ko sinon duñ ko am c'est parce que loolu nag bu fekkee noonu ngay liggéeyee façon liggéey boobu day mel ne toog bi ak ak dem bi ñoo yem boo gisee chauffeur yi amuñ amuñu fii un temps boo boo nee grève dañuy grève ñaari fan mhm. ña ñaar ñetteel fan boo boo waxul dem leen gars yëppay dem parce que dañuy dañuy xam ne dañ ci am xaalis. dañuy sonn mais léegi xam nañ ne bu ñu demee tamit c'est comme zéro boo déggee ne li ngay liggéey yëpp day def si tali bi ah loolu foog mu dañ. mais yéen euh, euh, euh, évaluer perte bi yéen patronat ah, bu ngeen doon évaluer ña actuellement on a perdu combien de milliards comme ça xam nga xam nga mun nga mun nga évaluer perte perte transport bi en tant que transporteur perte personne transportée wala personne perte marchandise transportée wala du sable du béton du ciment et d'autres choses mais ñi xam ne xëy ñu liggéey tey seen bureau na mun na ko évaluer ñaata ñoo demul liggéey tey. kenn xam ci marché bi ñaata ñoo demul tey ci seen bureau ñaata ñoo demul tey ci seen ci seen sukk yi ñu doon def ñaata ñoo demul tey ci seen fi ñu doon fi ñu doon xëy ñaata ñoo demul tey visite seen nit ku ñu doon seeti ñaata ñoo demul tey defar seen pièce d'identité wala seen casier judiciaire ñaata ñoo demul tey loolu boog man de pour man pour ma nekk expert bu bu bu bu bu international ci nga ma nekk pour pour mun ko évaluer mais mënuloo ko évaluer Euh, financièrement c'est c'est c'est c'est exorbitant wóor na yàlla d' accord euh, léegi euh, ñu wax ci beneen ponk bo am solo peut-être mooy dernière question bi waa euh, jëm ci renouvellement wu parc automobile parce que wax nga ko sànq mhm. oto yu bari màgget parfois mhm. da ngay gis oto yoo xam ñi ngi daw si tali bi da nga naan est-ce que ñii ñu ngi def visite technique ainsi de suite léegi mhm. yow naka nga gisee renouvellement wu parc bi ñu ne dañ fiy jëlee njaga njaay yi dañ fiy jëlee car rapide yi sept places yi dañ leen fiy jëlee am na sax yu ñu leen wala remplacer commencé nañ di ko wane yow ban hmm. jàngat nga am ci euh, renouvellement wu parc automobile bi ak tamit oto yu màggee di bañ te daw oto yu bees yi di daw ci kaw tali bi waaw loolu loolu moom moom lu baax lay doon ndax oto dafay dafay danger ci façon bu nekk bu xasee màggat mhm. certes mën na mën na mën na mën na màggat daw amul frein mu daw ci sa kaw mais mën na màggat euh, gaañ la te fekk daw ci sa kaw ndax bu màggatee ci ci genre pollution dana génne ci saxar saxar boo xam ne noyyi ko c'est c'est dangereux mën na di ko noyyi lu bari mën na laa andil mhm. euh, lu nekk ci sa poumon kon oto yu màggat yi fokk ñu jéem leen a dindi te tax li koy li li li nga xam ne mooy ci gën mooy ñu bàyyi liñ daan am vient de x wala y oto dañ koy wàccee fu mu fu ñu ko defaree nga jënd ko mu nekk ci réew mi di daw bu amee cinq ans wala six ans ñu changé ko nga jënd ndax loolu mooy tax euh, mu mu permettre nit ñi seen seen environnement bi ñuy dox li ñu ci noyyi euh, safar su baax ci frein oto bi di continuer di baax ci li nga xam ne mooy mooy mooy environnement bi nga xam ne yëpp daal mën na mën na mënoon na gaañ nit mu nekk ci ci jàmm loolu nag du mun a am lu dul mm-hmm. oto yi di liggéey di am dara mm-hmm. ndax état mënul mënul changer ñëpp seen oto mukk ci àddina mënu ko mu amul capital boobu amul amul amul amul amul man-man boobu li mu am li mu mën am man mooy yoon nit ñi yoon boo xam ne ci lañ war a liggéey yoon boobu nit ñi di si liggéey mu encadré leen ñuy am dara di desal dara ku ci sa oto màggat nga génne changé ko ndax super yi biñ fi nekkee ak njaganjaay yi loolu la meloon kenn daawu ci am dara bi ñu seetee ba xam ne li mënul continuer ak euh, pollution be yooyu ñu jëm leen changé par rapport ak ay tata par rapport ak saa yi tàmbali bi ça a été bien doon na baax ci ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ko doon yore mais ak semaine ci moo caractère ak Ndiaye Ndiaye ñoo yem ndax doo dem yéen gisoon ngeen seen bopp ngeen romb suba teel bi da nga gis ñu gaari juróom benn tata gaari ñeenti ñeenti tata ñetti tata côté bu nekk taxaw nit di nekk ci diggante bi dox lu ñu leen doyee laaj dara laaj rek laaj li ñu leen li ñu di laaj te loolu moom la waroon a am waa ji sëfër de desoo ci dara borom oto bi defee ci dara loolu ci bu defee ci tali bi loolu borom oto bi nu muy changé otoom léegi yow d'accord nga ñu ñu éliminer Ndiaga Ndiaye yi car rapide yi surtout surtout car rapide yi super yi mais ñëpp ñëpp lañu mhm. war a éliminer bu yàgg sax d'ailleurs léegi bu yàgg lañu war a éliminer ak seen place yi tamit mhm. attention éliminer lañ ci éliminer lañ ci bi ay mille neuf cent à peu près ah mhm. mille neuf cent wàññeeku na ci yoo xam ne dem nañu tas nañu leen euh, yóbbu leen yóbbu leen yóbbu leen euh, ci ci ferraille Hmm. dafa jeexagul kay mais. mais nombre boobu nombre mag bi jóge na ci jóge ci ndax amul benn tata romb boo xam ne remplacé wul benn car. d'accord que soit muy car rapide wala jafe amul loolu moom ku la ku la mën a wax lu mu la mën a wax. Hmm. loolu mënul am te amul. d'accord donc ñu ngi si si euh, ñu ngi ci processus boobu. waaw ñu ngi ci ñu ngi ci. waaw maanaam presque mi ngi ngi bëgg am ci fin bi sax parce que. directeur CETUD ne woon na euh, au plus tard le cinq décembre daañu daañu jeexal oto yi kon yaakaar naa liggéey bareetul. d'accord beneen ponk bu am solo tamit di di accident yi mm-hmm. surtout yéen ñi nekk si wàllum gros porteurs yi accident yi waaw na euh, ban jàngat nga ci am euh, ñi ci accident yi man man ñeenti njàngat laa ci amoon boo xam ne ñoo seq accident yi benn bi mooy transporteur bi dañ ko permettre mu am oto bu baax su amee oto bu baax sàmmanteeg visite technique ak assurance ak mécanique bu oto bi mu aw yoon loolu devoiram la mhm. chauffeur bi nañ ko permettre mu am oto bu baax bu amee oto bu baax pare nag moom mu mu mu jéem mu wér bi nga xam ne du naan sàngara du tux yàmba du mànd ci kaw tali bi te man conduire per man mën a mën a conduire c'est-à-dire oto ba mën ko beneen bi ci des mooy ñi di ko former presque tous les trois mois wala tous les six mois ci situation bi nga xam ne mooy bees ndax circulation toujours day changé circulation euh, euh, routière toujours day am changement yoo xam ne ci mbedd yi ak ci ci ci tableau yi ak ci kii toujours war nañ koy informer chauffeur bi mun di ko di ko di ko defaraat mise à niveau boo xam ne day day tolloog moom bi ci des mooy euh, état bi góorgóorlu la trop ci defar ay tali yu bare bare léegi depuis bi ñu fi nekk léegi defar nañu ay tali karo defar ay tali ci euh, biir réew mi defar ay ay ay ay ay voies goudronnées def ay voies bitumées waaye ba tey dafa des li des mooy dafa am zone boo xam ne circulation bi dafa dafa dafa dense dense bi mu dense tax na foog mu nekk deux fois deux si sinon accident yi dafa jóg ndax benn exemple rek laa la jox diggante Dakar jam ñaajo il y a dix ans de cela nun dafa doon am ay accident yoo xam ne ñaari oto ñooy dajee ñett dee juróom dee juróom benn dee li mhm. ñu ko defee deux fois deux fois léegi ba léegi gisatoo fi ñaari oto yu mbëkkante donc dana am accident mortel mais très rare at mu nekk benn yoon la ci am wala ñaari yoon par contre boo boo génnee jam ñaajo jëm Kidira c'est presque tous les tous les tous les mois da ngay gis ay vingt cinq yu dee quarante yu dee quinze yu dee lu ko waral c'est hmm. parce que oto yi dañuy dajalewoo dañuy dajante euh, benn benn oto bi nga xam ne moom ngay dawal boo xam boo xawee sonn lu tuuti tuuti wala nga demee lu tuuti tuuti benn seconde boo ko boo ko perdalee rek oto dal sa ko wala a ci oto donc loolu li koy dindi mooy ñu am deux fois deux voies oto yi ngay xam ne ñooy dem jaar ci fii oto yi nga xam ne ñooy ñëw jaar fii lu mën a xew accident du ñàkk ci circulation mais dana dana dana dana néew te du du am du am ay mortel mais feeg loolu amul nga xam ne oto buy daw quatre vingt oto buy daw cent mooy daw ba yàgg muy bëgg a doublé keneen bi ñëw di daw cent cinquante comme moom loolu feeg mi ngi am accident di am. kon ñoo ñooyu buñ ko dindee accident dana gën a wàññi bi ko bi ko ñetteel mooy. Mhm. benn oto bu war a jël trente personnes mu jël cinquante personnes. surcharge waaw. te li ma jaaxal mooy soo soo soo jëlee ci oto bi camion bi soo ci jëlee cinquante tonnes te nga war a chargé quarante tonnes boo ñëwee ñu ne wàcce ko léegi yow nga war a jël trente personnes jël quarante personnes ñu bàyyi la dem xanaa nit ki moo ëpp valeur saaku ceeb moo ëpp nit ki wala déet doy na waar xam nga xam nga loolu dañu waroon boo boo boo war a chargé ñu ne wàcce ko mhm. su ko defee soo liggéey doo ko def <laughs> comme ni ñu koy defee ak ak ceeb bi wala wala béton wala ak ciment bi mais su fekkee ne nit ki su ëppee lu mu mën a ëpp ñu bàyyi ko ci ñu bàyyi ko ci oto bi euh, du tàggoo accident yoo xam ne day day nekk accident yu mortel ensuite ñi nga xam ne ñooy agent yi kaw taxaw ci kaw tali bi bu ñu romb bu leen oto rombee boo xam ne dafa surcharge ñu am courage yu wàcce nit ñi ñu dugg beneen oto ndax souvent da ngay gis benn benn oto. accidenté ñu ne dafa amoon quarante personnes de plus wala trente pourtant romb na ñaari yoon ay ay ay ay ay ay montage ci yoon wi. Mm-hmm. est-ce que bu ñu wàcce woon foofu ñooñu daañu dee. déedéet kon ku nekk ñeenti devoir yooyu bu ñu ko respecté wul lu mu yàgg yàgg accident day gën di am di gën di metti te état bi moom mooy defar tali ba mu baax di di chauffeur bi moom mooy mu sañ bañ a naan sàngara bañ a bu gëmmentoo mu taxaw euh, sàmm otoom borom oto bi lim moom mooy oto am am am yi bi nga xam ne moom la am yëpp ak direction bu baax bi ci des mooy bàyyi si charge bi ci des mooy am am droit yi ñu contrôle ñi nga xam ne amuñu droit ci euh, def si charge ñu bàyyi si charge bi ku nekk dem ci am. voilà Mbargou Badiane euh, waxtu bi dab nañu ñu bàyyi la nga tàggatoog auditeurs yi ak sa mbokk euh, transporteurs yi ak ah. chauffeurs yi. waaw jërëjëf dinaa dinaa dinaa si dolli benn kii rek ndax gis naa fan yooyu maa ngi doon ci affaire tarif. Mhm. Euh, nit ñi comme bari na ñu ma comprendre ndax dama leen ne soo jógee gare de Lyon jëm gare du ci biir Paris lépp ci biir Paris la peut-être quarante cinq kilomètres lay nekk à peu mm-hmm. yaa ngi fay six euros six euros yooyu bi am na yokk yokk nañ ko subvention quinze pour cent yoo xam ne dana ko mën a utiliser après. léegi yow boo jógee woon fii Dakar jëm Saint-Louis cent deux cent soixante dix kilomètres. mënoo fayeeku trois mille francs bu dee kaar nga yore bu dee sept place nga yore mënoo passé cinq mille francs xoolal différence boobu mhm. léegi nag su melee noonu nan nan la ñu bëggee euh, am confort bu mel ne bi jógee bi jógee gare Lyon jëm gare du Nord nga am même confort que gare bi jógee bi jógee Dakar jëm jëm jëm jëm Saint-Louis mënul mhm. nekk te te nit ñi nit ñi nit ñi nit ñi pare nañ pour fay pare nañ pour fay euh, tarif boo xam ne bu baax la dañu dañu gisul oto yu baax donc foog état permettre nit ñi ñu ñu yokk tarif bi bu mën a jël oto yu baax nit ñi d'accord pour fay fay bu baax di dem ci jàmm di dugg ci jàmm bu dul loolu buñ fayee oto yu yu dagg di wadd yi ci ci laay duñ nangoo du am xaalis de transport ba tarif ba du am njëriñ ñàkk ñàkk ñàkk tarif boobu du am njëriñ ndax client bi su gisee benn oto boo xam ne gis na ne am na climatiseur eh, am na am na confort mën na dem léegi ñaar na ko fay dix mille léegi nag yow mi nga xam ne yaa yor benn kaar bi ñu nga boo eh, da ngay da ngay da ngay force tarif kon kon ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi pénaliser bi nga xam ne moom ku confort la bëgg dañu waroon bàyyi ku bëgg a dugg confort dugg confort ku bëgg a dugg ci leneen nga dugg ndax train sax dañu am premier ak deuxième classe mm-hmm. premier nga am yow bu fekkee ne am nga capitalu fay euh, dugg confort ñu bàyyi la nga dugg ci confort fay loolu nga war a fay ki nga xam ne nag euh, li mu am li nga toll loolu ñu bàyyi ko mu dugg fay li mu mën a fay mais toutefois que ñooy kenn du yokk tarif yi dañuy dañuy andi dañuy pénaliser nit ñi te ñi ñëw daañu ko yokk seen bopp. dëgg la. <laughs> loolu loolu mooy kii bi li maa ngi maa ngi di gërëm bu baax nag waa réew mi ndax euh, vraiment. Mm-hmm. jàmbaar ngeen doon ngeen lu bëree bëree bëri. te naa ngi ñaax sama mbokk yi transporteurs chauffeurs yi li ñuy taxaw na daje mooy booba te te le 17 euh, novembre bi passé moo doon euh, fexe ba am njiit tax tamit li nga xam ne mooy def defa transporteur yëpp amuñu njiit loo xam ne dafay taxaw ci seen kanam ñu ànd ak moom ci loolu dañuy ànd rek ay ay regroupement ci ay ay ay ay syndicat ay nanga nang te en tant que opérateur en tant que employeur en tant que euh, euh, comment dirais patronat dañu nañu nañu dellu si ci li ma doon taxaw barki démb nañ ñëpp ñëw ñu bokk ko ànd ci muy fédération nationale des transporteurs nga xam ne mooy ko wax tout ce qui est transport au Sénégal daañu mën a fajal suñu bopp lépp lu ñu war a faj te doxal suñu bopp lu ñu lépp ñu war dox jaara jaaree transport ci yoon nga xam ne ci la a jaar ba mu jëriñ ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci réew mi ak ñi ci réew loolu rek laa leen koy remercier bu baax a baax Mbargou Badiane nekk euh, président bu union sénégalaise des transporteurs routiers ñu doon waxtaanee jafe-jafe secteur bi kon ñu ngi koy remercier ci disponibilité am di leen remercier yéen tamit suñuy auditeurs yi ànd waaw waaw yokk yokk ci la président fédération nationale léegi moom laa nekk léegi. parce que moom lañ ma moom lañ yaa. fédération nationale waaw voilà des transports routiers du Sénégal waaw. voilà kon uh, ah, leer na ñu koy remercier Mbargou Badiane ak yéen tamit ah, suñuy uh, auditeur ba samedi prochain dix heures jàpp onze heures ci beneen émission beneen thème ak uh, beneen invité jaa ngeen jëf émission bi tamit mën ngeen ko dégluwaat ci suñu chaîne YouTube Rewmi officiel jaa ngeen